Kerja lebih dekat, kalau lihat orang tua, kerja lebih mana yuk mandi, mandi tanah, yuk, yuk, kan, ya lebih mana yuk, mandi mandi pada mandi. Wow. t va m h o s a n a c o v e r u Udah. loo xamante ne Sénégal la yi ay marchandise yi ay Dubai la yi ay France yi ay ki, ah yi ay Tanzanie yooyu lay lay jaxase parce <laughs> que alxuraan ko rek billaahi lekk yoo xamante ne soo demee Tanzanie wala Burundi ñu fa fekk genre lekk yoo xamante ne parce que rasulullah yi lekk yi yow gis nga buñ xoolal da ngay dem ci yeneen dal yi yeneen kii service yi yàquma leen nag sama yoon nekku si ñoom mais da ngay lekk affaire day diis xam nga day diis da ngay tañ biiru tañ la lay indi ak ay ay ay ay kii ay ay ngay ngay du duus ak yooyu mais imaginaire soo ba tey yaa ngi lekk te dama boo duus maanaam xool taxaw na la ci ma parce que Rusu doo dem duus doo daw di daw def dara tey laay doo ko xam tey laay doo koy dal fii di servi di lekk soo ba jënd soo ay daxale ñoom i eh, ñii n'importe quoi du leen yëkkati de ay Momy Kébé yi leen ay xalifa général yi leen yëkkati ay Youssou Ndour ah ay ñoom ñu la ñuy servi duñu servi ñu am ay ay pexe duñu servi ko am pexe da xool seen seen comportement rek xool seen comportement xoolal seen koppa xoolal verre yi macha allah xoolal xool ñi te te dañoo jàng ay dañoo jàng ay karak lañ xam lu civilisé xam lu bon xam lu baax Salim Salim mention spéciale <laughs> Salim lii dafa ëpp lii expert xool ba pare seen tenue ak décor ngi ko bi bi ko garaawee non après laa koy wax non hmm? jox ma sa sakulaat joxoon soxla moom la. waaw. gan waaw kay gan yi xoolal. laa ilaha illallah. maison ami maanaam soxlaa bi day mel ne si nga koy derteere day mel ne si xool. so bëggee mu gaaw a soo bëggee nga gaaw ko wan nga gaaw ko wan su su la neexee def ko genre lycée di ko di ko fi yëy xam nga yëy espérer nee nañ yëy maanaam. mbay kon mbay. sàq mi maanaam sàq mi xam nga lan la sàq mi maanaam désert la. mbay hmm. mbay. Hmm? kon gars yi lay laaj naa la mbay loo yëy. lii la maison d'ami yi xoolal. parce que mbay dama bëgg day kii rek. damay yëy c'est que lii laay yëy genre chocolat genre chocolat bi maanaam day désert. soo lekkee sa biiru daw dafay ah désiré mais non dama sa sentir qualité ak neex ak di lekk muy neex ak di lekk muy rees ak façon hygiène bi mu am maanaam sa sa biir su amoon affaire bu chronique ba affaire benn genre salté sax maanaam da koy raxas daf day fas waaw oh sam comprendre nga yow ko neex daa expliqué parce que alxuraanu karim du ma leen wax numéro bi ngeen koy jël li secret la kilifa yi ñoo ko ñoo ñooy woo ñoo ñoo leen woo su ma leen joxee numéro bi su ma leen joxee numéro Salim ah. ale ale xam nga madd bi lan lañ koy defaree maanaam bi madd bi maddu Tanzanie la Tanzanie billaahi màggal kii lii madd bi maanaam ale ñamal madd bi ale ñamal ma ñamal ale ñamal madd ñamal soxla mais investisseur benn benn ci lakk mais Mbaye ci fàttali yaa ba tey maa ngi soxna kër soxna Momy Kébé ale madd bi gato bi gis nga xam nga man genre gato la ale xam nga ban gato la gato boo xam ne danga koy naan mu mel ne glace ngay lekk. laa ilaha illallah laa ilaha illallah bi laa ilaha illallah ndem ngeen soxlaa parce lii du soxlaa lii maa ngi sentir loo xamante ne maanaam dafa mel ne glace lekk maanaam glace dafa mel ne glace yi ñuy def si frigo la lii soo ko tegee ni mana jarum soo ko tegee nii maanaam jarul def frigo jarul def dara day sedd day sedd tout le temps parce que man man damaa waa xol billaahi wallahi taala dafa mel ne glace ngay glace mel na glace ngay ngay ngay dan te xol vingt quatre heures mën nga ko sa gan bu gan bu gan bu day jël dafa si frigo lay jóge chaque instant kon. dekor, décor bi décoration bi décor bi du ngeen ko gaaw a gis parce que ñoom duñu ay territoire xale maanaam duñu ay territoire naxaate duñu ay ñoom suñu amee événement fa fa la ñu duggee dañuy dem ba gën dëkk bi def ay millions ci dépense ñëw ñëw ñëw yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla aar

keep ah. Wow. <laughs> <laughs> xaar bi bu nekk kenn bi nga xam kenn du la laaj xaar kii yow mënta léegi nga xam ne gars yi ñu jéem rek moom xamal na ne yow kii nii lañ wax yow dama lay jar xaar moom faa xam ne waaw am na 我们在这边工作，那边在上班。